yéen kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbay wu wulleeti na Ousmane rapport ca kanamu yoon daanu gi Ousmane Sonko daanu waa démb ca kanamu Cour suprême mooy li yéen kay xëy di jaabajongi bokk ci l'observateur mi bind ci xëtam mu njëkk ne Mame Mbaye Niang gagné daan di condamnation gi cour d'appel bu Ndakaaru condamné woon Ousmane Sonko mu di juróom-benn weeri kaso yu mu dul tëdd six mois avec sursis ak ñaari téeméeri millions yu mu war a jox Mame Mbaye ne dommages et intérêts daan yooyu yéen kay bi nañu Cour suprême da koo dëggal démb li toll Ousmane Sonko mënatut a dara ci réew mi mënu fee fal kenn nit ñàkk nag éligibilité am enquête nañu Sonko fa xasu ci élection présidentielle yi xanaa yeneen a rek waaye yu yi moom dégg rek la ci am ñu dégg ci xët mu njëkk enquête kàddu yu maître Khouraychi Ba bokk ci avocat Ousmane Sonko yi moom maître Khouraychi Ba ma fay xam le ne li mooy kii di Ousmane ay kontaram fexe nañu ba xañ ko élection présidentielle yi Les bind ne Mame Mbaye Niang moo écarté Sonko Walf Quotidien nañu ëttu moo éliminé Sonko ci présidentielle yi journal L'As xëy leen ñoom ñaar ci xëtamu njëkk muy Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang bi dellu ak ñun ci li ci Cour suprême dogal démb li ci L'As yéenekaay jàng moo di Mame Mbaye def na ko Ousmane Sonko point actu nañu Mame Mbaye Niang na Ousmane Sonko Cour suprême dëggal na juróom benn weeru sursis yu ñu ko daan ak alamaani ñaari téeméeri millions yu ñu ne ko jox Mame Mbaye Niang point na ñu ko gàlloon nañu Ousmane Sonko out nguur si faxasu na ci wotey présidentielle yi ñu woteel condamnation bi cour suprême dëggal démb moo ko xañ ak éligibilité am lay fa ñu ko dëggalal ci xëtamu njëkk li mu bind mooy Sonko ñàkk nag éligibilité li ko dal démb ca kanamu cour suprême journal bés jour li mu ci gis mooy ngato bu wex xatta kaani bu ñu ko leel moom Ousmane Sonko kuddu gi ñu defoon ngatob kaani bi le téemo ñu nañu ci loxoy cour suprême ci la jóge ci wasa mu témoigné nee nañu guddét la ci histoire judiciaire bu Sénégal leneen lu ci journal bi seetlu mooy ci bés bi commission contrôle parrainage pare liggéey ci jour boobee ci la dogalub Cour suprême bi dal ci kaw Sonko Anta Babacar Ngom la ko waykat ba ne woon jëf ca ko ko mën boo ko mënul da nga yàq jëf way woowee Anta Babacar Ngom feeñal na ko démb ba ñu koy contrôler ay parrainage am ca conseil constitutionnel sour soi nañu moom Anta Babacar Ngom ñépp la bett ndax surprise bi le jour nañu moom doomi papa Babacar Ngom gi ku ko jàppeeti ab cuuj juum nga Walf Quotidien nañu dossier parrainage bu wow la joxe démb ñëw jàll d'office siggil képp kuy jigéen sauver l'honneur ndax ci jigéen ñi jot a jàllagum ca kanamu commission ba kuñ ci tëyewul nee nañ la dellu mottali libération nañu Anta Babacar Ngom non mooy candidat bu jigéen bi njëkk jàll d'office ci parrainage waaye mooy candidat bi njëkk jàll d'office ak ay parrainage dogal ca parrainage bi kenn ca di Aminata Touré la sinekaay mi ngi ñu yegge mer mu rëy mi mu guuxal commission bi ko doon contrôler ay parrainage am moom Aminata Touré moom ak neexi tubaab di Abdoul Mbaye ak Bassirou Diomaye Faye Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne seenu ëllëg ci élection présidentielle yi tàq na suuf ndax ñoom ñetti candidat yëpp ay doublon moo leen tere jàllagum ki bëggoon jàll ba far jaare fa jàll police Le Quotidien ne nañu mooy waa ji di Thierno Cissé démb xonum doon candidat indépendant musuta bokk na ci benn parti politique li mu def mooy bi ñu ko laajee parrainage dane moom parrainage parlementaire lay joxe waaye dafa joxe ab liste boo xam ne député yamu ne moo ci nekk député yi kenn xamu leen nationale ab faux liste député la yóbbul waa conseil constitutionnel libération nañu moom waa ji di Thierno Cissé ba ñu ko jàppee ba yóbbu ko ci division investigation criminelle li ñu koy tuumal lépp la nangu